bisimillahi rahmaani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba ski Serigne Touba borom Touba moroo mantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen ndokkeel ci lii nu génn muy màggal gi di ñaan sunu borom nangul nu ko ni nu bëggoon a santalee Serigne Touba yàlla sunu borom di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di ñaanal ñëpp di sàkk ñëpp ñaan di ñaan yàlla boole jéggal ñu di sant yàlla ci xéwal yi mu nu defal rawatina boole gi mu nu booleeg Serigne Touba di ko ñaan nag ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawféexam moom yàlla li koy neex yàlla na ci boole yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha tawféexal ko kattanal ko aar ko ba li mu nu sëral liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko nu ànd koog moom te muy njariñul julli yëpp nu am ci ngërëmul Serigne Touba li tax nu dikk nii nag ci dikk bu gaaw dafa am lu xew ci tuubaa ci jumaa yi Touba. muy lu doy waar loo xam ni bu doon guléet sax dañ ciy wax waxantu bu laag bi mu dul guléet mooy am na benn jigéen bu wax Marichou di jouer théâtre wala mu am lu mu def ci film yi moom tur yeeg tudd ko yëpp sax yitteelunu waaye mbir mi ci moom la jaare mu ñëw Tuubaa ci màggal gi ñëw ba ci jumaa ji dugg ci jumaa ji gis ñi fi nekk ñu ubbil ko jumaa ji yéegal ko ci kaw yéegal ko ci soorool làmp faal bi yéegal ko ci sooroor bi mu yéeg ba ci kaw cib sooroor ci benn sooroor yi yéeg ba ci kaw di fa def snap di teg musique moom Marichou moom nag benn li ñu jëkk wax ci moom wax ji jëmul ci moom waaye am na lu ci jëm ci moom moom bu dee jullit ak tarixa bu mu mën a bokk ak fu mu mën a bokk bu amee yëg-yëg ci yàlla ak bi dara war naa xam ne bi muy def loolu amul lenn lu mu ko mën a layale avec sa conscience tranquille conscience boppam moom Marichou waru ko a may loolu ngorom muy koot jomam ak njuliteem waru koo may même bu dul sax ak tooñ mënut a weesu loolu waaye nag moom mënuy su ko wax dara ci kanam ñi may bëgg a wax mooy daa daairatu muqaddamatul xidma mu ñu dénk jumaa ji dénk leen armeel yi ak li wër jumaa ji yépp responsabilité bi yëpp ci daairatu muqaddamatul xidma di tege te gis nañ ni am na yu gën a tuuti yooyu sax ci ñuy filmer wala dara bu ñu fa ñëwee danañ ko saytu ba loola lu du am kon nag li am moom ubbil gi ñu ko ubbil jumaa ji yéegal ko ci kaw sooro bi muy snap du xasaay du dara waaye musique ba mu wër adduna bi yëpp tooñ yàlla tooñ yonent bi tooñ seen Tuubaa bu ñu ko weesu képp ku ko def waaye muqaddimatul ma nag ka ko jiite ba ka ca suuf damay jàpp ni ka ko jiite wërte mën a fekk loolu li tax ma def vidéo bi mooy lii sëñ Muntaxa da koy war a yëg jullit ñëpp am leen naqari taalibe yi am leen naqari muy loo xam ne doo xam nu muy tekk waaye nag bu fekkee dañuy jàngat àdduna fi mu toll danañ xam ni lépp lislaam ju sell nuñ ko mën a taqale ak nuñ ko mën a saboté lobby yi dinañ ci jaar danañ ko jaar ci ñuy danañ ko jaar ci ñuy musique danañ ko jaar ci ñiy fo ñëpp ci dañ ko jaar ba nga xam ne ñoom lu ñu bëgg a jaar rek ci ñoom lañ koy jaar Marichou moomu nag mën naa ni amul benn werante kon loolu ci la bokk ndax moom bu dul woon ab jullit sax war naa xam ne am na loo xam ne yellul waaye nag nun mënuñu ko wax dara mënuñu ko wax dara ki ñuy wax mooy mu xaddamatul ma ñi ñu dénk jumaa ji nga xam ne lu gën a tuuti loolu sax bu ko fa nit defee ñu taxaw di bañ ci lu mën a doon te ñooñu mën nañoo bokk ci dëkk bi loola damaa ni lan moo waral loolu kon li war lan mooy immédiatement ñoom fi saase dégg naa ñu ne ndaw si jéglu na man waxuma waxi ndaw si li may wax moom mu xaddamatul xidma ci turu murit yëpp lañ tooñ kon nag li war a am mooy bii jëkku ci amoon na son bu fi jàlloon ci jumaa ji ci rajo bi jumaa ji son bu fi jàlloon boo xam ne son bu doy waar ci ki yoroon rajo bi loolu xam nañ ko ñu dëkk Tuubaa xam nañ ko loola jàll bii amaat ba te booba kenn wax waxuma ci woon dara mu juub dama naa am ci wàllu machine rëcc nit waaye loola ñëpp déggoon nañ ko mooy lu garaaw a garaaw a garaaw ñu teg ko muy son bu jàll ci jumaa ji te garaawoon na lool bii nag moom kenn daa xamul noo koy layale ndax mënoon ni njuumtal machine la kan moo ko ubbil fi mu jaar ba jàll ba yéeg ci kaw kan moo joxe ndigal ñu ubbil ko damaa jàpp ni fii fi ñu yéegee ci jumaa ji caabi ji ki ñu dénk mu xaddimatul xat moom moo ko war a normalement bu fa kenn di yéeg ci jumaa ji ku fay liggéey lay war a doon te loolu jigéen du ca bokk ndax jigéen amul lan luñ ko war a mën liggéeyloo ci kaw jumaa même bu dee liggéey sax daganul mu yéeg ci kaw jumaa ji tiim xubab sëriñ bi même bu fi xubub sëriñ bi newul woon sax dëgënu muy yéeg waxantuma la nag muy doon jigéen kon mu xaddimatul xidma li ñuy exiger di ko laaj mooy immédiatement ñoom dañoo war a jóg defe ak leeral li ñu koy defee ci xew yépp wax mbir mii lan moo ko waral kin kan lañ neexal xaalis bu fekkee neex la am na ci kan moo ko ubbil bunt bi ndaw si itam ñu woo ko enquête ko lan moo tax mu def lii ndax du bëgg snap rek du bëgg musique rek am na lu ne ci ginnaaw mbir mi am na lu ne ci ginnaaw kon mu xaddimatul xidma nañ jóg jéggalu doomu aadama yi wax ak nit ñi ndax jumaa ji jumaa yi Serigne Touba la murid yee ko moom murid yee ko bokk jaamu yàllaa ko moom murid yi lañ fa tegal ak jullit ñëpp ngir ñu teg ko muy barabu lislaam bu sell ñëpp xam ko teg nga xam ne Serigne Touba fi mu teg jumaa yi xam ne ba dégg ko ay na loo xam ne du personnel du benn membre boo xam ne nekk na ci ma doon moo bu tax ñuy wax liñ leen dénk moo tax ñuy wax ñu bokk ko moom ko te mu jëfi Serigne Touba yoo xam dañ ko war a faggar yoonu murid lu ñu ci dénk nit kooka dañu war a teg bakkanam di ko saytu nam ko war a saytoo kémtalaay kattanam waaye lii mënoo koo layal fenn ubbil nit jigéen mu jóge ca àll ba ñëw di musique ñu ubbil ko mu yéeg ba ci kaw di snap ba adduna bi gis ko yëpp lii mu xaddam nit xaddam nañ jóg léegi leeral lan moo waral loolu ba def ci enquête ba tam membre yi nga xam ne ñoo ci bokk mën naa am du ñëpp waaye ki nga xam ne moo ko def nañ wax nit ñi ni diwa ko def enquête ko moom yóbbu ko denc ko ci roq laaj ko ba xam lan moo tax mu def lii ndaw soo see itam ñu woo ko laaj ko lan moo tax mu def loolu jéglu rek la ciy tuuti maanaam lan moo ko yebal lan moo tax mu def lii ak lu mu kenn mënu koo leeral kenn kenn mënu ko te gëw ma ni sax ab taalibe la li ma for li ma for ci yow nag wóoraguma waaye gëw ma ni ab taalibe la kon lan gan yebel la war a mën am moom itam bay def lu mel noonu waaye loolu mënoo ko wax dara dara nga ko mën a wax ndax mat gi ñuy séntu ci Moukhaddamatoul Khidma ak intelligence bi ñuy séntu ci ñoom ak ak ak waggar gi ñuy séntu ci ñoom ak foogu gi ñuy séntu ci ñoom yaakaar naa ni kenn du man a nattali lii daan nit nit ñi dañ ko njuumte la mënoo su ko ji njuumte caabi ji kan moo ko ubbil ji ba mu yëkk kaw soro bi bay taxaw di snap ba noppi musique bi nga di ko dégg muy teg musique yaakaar naa ne lii mënu ko gàcc mënu ko weesu ku ñu wóolu nag toll toll nii ci yoonu Sëñ Tuubaa la ci gën a tuuti bu ñu la dénkoon ak lu ñu la mën dénk lu mu tuuti tuuti sax wóoroo waxantuma la ak la ne fi murit yëpp yaakaar ko doyloo ko xool ñu mën a bàyyi jigéen jóge ci àll ba bu doon taxaw di jàng alxuraan sax jaaduwul waxantuma la ak nag muy muy teg musique teegu sooral lii nag moom nañ jóg léegi ñoom def déclaration leeral nit ñi lan moo ko waral ak kan ci membre yi moo moom lañ moom lañ neexal wala moo nekk ci suuf wala lobby bi lobby yi nga xam ne ñoo yebal ndaw si ak ku mën a doon ndax ñun am na loo xam duñ ci egg ump ñu xam nañ ko ndaw moom fa mu jógee la ko yebal li ñu jubli ci geste bi ñu def yëpp loolu moom beneen mbir la waaye mu xaadimatul xidma daal na leen wér ni lii sëñ Muntaxa da ko war a yëg di koy ñu xam ne nañ jël responsabilité nag parce que mënut a jàll noonu rek déedéet wax ji nag fi nu sëñ Tuubaa egg moo tax ñun ñëpp noo bokk sëriñ Tuubaa amul kenn ko ko moom kon li waaye nag kenn ku te da nga cee def la nga nga xam ne moom nga ca war a def mu xaddimatul xidma ak lu mu mën a doon ku nekk rek boo defee nga war def rek ñu xam ne def nga li waaye lii moom naqari na mur yëpp te war nañoo gaaw def lay daal gëm naa ni sëñ Bousso bi mañ ko ba ko xëy na jombul ma nga waaye ñi monté woon keroog ci bis bi bi ndaw si ñëw ak ki ko ubbil nañ seeti kan la ak lu waral mbir mi ak lan moo ko nas na gaaw léegi loolu dañ ko war a def waaw murid yëpp a ngi déglu nag am nañ leen naqari te tooñ nañ murid yi foofu tooñ di yem sëriñ bi rek la njëkk a tooñ tooñ lislaam tooñ yàlla tooñ yonent bi ndax li nit mbir mu ne su ko dégg te am na lu fi amoon kon ñaare bi mu ngi nii kon nag mu xaddimatul xëy na nañ jóg mi ba noppi moom moo ko def ñu génne ko xamal ni diw la enquête bi yëpp dañ a yëg ñun bu ñu amatul loolu sëñ Touba jumaa ji desewuñ loolu moom di ko xool bu fekkee ne mën nañoo bàyyi nag ba fob yi ak lu nit dugg nag boobaa war nañoo toogaat nag xoolaat mbir yi bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu incha allahu rabbi bu ñuy def bilan màggal gi fii ak suba dinañ ci dellu si incha allah jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu nañu xam ne tooñ na na murid yëpp te itam fulla ak fayda ak ñor war naa weesu lii nit bu ñu demee ba dégg ko leen li na loo xam ne ko layal njuum te mënees na waaye lii ak tayef la gu rëy rëy nañ ko enquête nag gaaw leeral ko bokk yëpp nit ñuy leeral li yi fi jaar yëpp ci biir jumaa ji wala ci sëg yi wala yeneen ak yeneen jërë ngeen jëf